ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di kontaan seen ñëw fii di jéggalu si yéex a commencé bi di wax ni euh, danañu fexe wax ji bañ a gudd ba ku nekk mën a continuer say activité tey coalition gox yu bees moo leen woowoon fii waxtaan ak yéen ci élection yi ñu jëm te campagne bi tàmbali bés ni tey waxtaan bi mooy waxee taxawaayu coalition gox yu bees xam ngeen ni bu coalition bi taxawee ba léegi dañaa jiital xalaat yu bees dañaa jiital ay programme dañaa jiital ay idée ci suñu doxalin ba tax na waxtaan yu njëkk yu ñu am mooy yenn engagement la ñuy jël ba ku ne si ñun ne ala kulli alin lii moom il faut que mu am sama commune yàlla su mayee ndam waxtaan yooyu di yaatu ñu xam ne tamit commune yi bokkuñu nduroowuñu ñu xam ni commune yi am nañu ay wute léegi ñu ne candidat bu nekk mën na liggéey ci programme boppam waaye balaa boobu dañuy joxe ay orientation yoo xamante ne ku nekk mën na ci sukkandiku donc di wax ni candidat coalition gox yu bees dégg nañ loolu liggéey nañ ci loolu candidat yi bokk ci candidat yu njëkk a génnee ay livre vision si wàllum élection yi donc ku si mel ni man am Ahmed Diallo ku si mel ni Pape Mamadou Diop ku si mel ni njege Ndiaye bokk si coalition bi génnee ay livres waxtaan si ak seeni gox basé wu aussi si orientation yu coalition bi joxe yeneen candidats yi aussi daf ay programme yu am solo basé ko si orientation yi donc loolu pour wax ni. élection yi ñu jëm suñu yéene mooy lépp nekk ci wàllum programme lépp nekk ci wàllum vision orientation yu bëri na duñu mën a ñëw fi yëpp dañ ciy wax quelques points rek après su leen amee ay questions ñu dugg ci détail bi nañ leen partager document bi tamit ngeen mën ko exploiter ci point yi bu si njëkk mooy gouvernance gu yees mooy e-gouvernance mooy xarala yu bees yi fexe ba ñu dugal ko su sunu commune nu muy doxee si amul këyitu juddu kayitu mariage kayitu kër yooyu noonu yëpp nuñ koy joxe il faut ñu améliorer ko sécuriser ko ak xarala yu bees yi donc ñu wax si lu yaatu su ngeen amee laaj nañ ñëw si détails bi candidat yi tamit jël ko décliner ko en programme dans leur euh, euh, en projet dans leur programme beneen gi mooy nu ñu yoree suufu mairie yi xam ngeen ni communes yi maire yu bëri seen bakkan lañ ci teg ndax xam nañ bés buñ ko ñàkkee dem ndax scandale yu doy waar la ñu def si wàllum suuf ñu si bëri sax dañu jàpp ne jaayum suuf mooy seen liggéey fan yee passé gis ngeen ni def nañ conférence de presse kaawu Ngexoox wane ni alal gu waroon dugg si mairie Ngexoox ñu jël compte administratif yi xool ko comparer le nombre de parcelle vendues près de six milliards yu xamante ne waroon na dugg si compte yi duggul ci wàllum suuf mu nekk lu garaaw nekk lu doy waar donc ñu ne képp koo xamante ne candidat nga gox yu bees xam nga suuf moo nar a taal ëllëg Sénégal da jël engagement ne ah suuf bi kat bi ñu koy gérer day jaar yoon lu muy jaaree yoon mooy transparence danga koy yaatal indi lu ñuy wax commission domaniale élargie bi nga xamante ne di si boole yeneen parti yi nga xamante ne nekkuñu ay conseil lu si mel ni ay AIC bu nekk jël si kenn koo xamante ne mën na à chaque fois ñëw si commission bi teewee ko wax si xalaatam demander des comptes donc les conseils consultatifs que nous allons mettre en place au niveau des quartiers ñoom aussi ñoom ay représentant ci commission boobu nu ñu yoree suuf bi su leeree ah dina indil jàmm Sénégal parce que gëm nañu ne at yii di ñëw lu xewoon ne leer dina xew faneen te problème mu suuf day gën di yokk Sénégal ndaxte ñu yor dëkk yi wutuñu xalaatu wuti alal faneen wutuñu xalaatu développer seen dëkk faneen lu dul jaayum suuf te suñ jaayee suuf ba amatuñ suuf buñ jaay suufu jàmbur la ñuy jaay te loolu lañuy ñuy gis ci commune yi jël benn terrain jaay ko quatre personnes ba cinq personnes donc engagement bu am am solo la ci coalition gox yu bees régler problème boobu définitivement donc loolu pour régler ko aussi wax nañu ne ci xarala yi système d'information géographique muy li nga xamante ne mooy permettre commune bi mu mën a xam lan mooy patrimoine am ak suuf gune fu mu ne ak ku ko moom sécuriser ko donc loolu dinañ ko mettre en place beneen ko si topp te mu am solo ñu wax ko mooy nit ñi souvent dañuy wax ni communes yi amuñu ressource donc dañuy wax xool nu ñu wutee ay moyens xam nañu ne communes yi mën nañu am ay moyens waaye il faut ñu liggéey mais un aspect important mooy coopération décentralisée mooy jokkandoo ak ñi nga xamante ne ñu ngi bitim réew xam nañu ne doomu Sénégal ñu ci bëri ñu ngi bitim réew am fa ay connexion liggéey ak ñoom ngir commune bu nekk am ay xarit commune bu ne di nga fexe am fukk ba cent xarit yi nga xamante ne di nga liggéey ak ñoom sur les aspects de coopération décentralisée baneen gu ci topp mooy ci wàllum caada fexe nit ñi di xam commune yu ñu nekk parce que xam mooy tax nga engagé wu soo ñëwee fenn toxu si fa jënd fa kër wala loué fa xamoo fa dara balaa ngay bokk ci processus de développement bi day yàgg parce que doo xam dara moo tax ñu ne dañuy def des musées des territoires yi nga xamante ne chaque commune dina ko installer daf fa histoire commune bi wax fa li nga xamante ne nit war na ko xam récolter euh, données yi nga xamante ne mu ngi ci kër yi euh, mag yi jenc ko ñu regrouper ko benn endroit ñu ñëw ci dëkk bi ñu fexe ñuy xam dëkk bi pour s'impliquer boole seen bopp ci histoire dëkk bi wax nañu ci wàllum cadre de vie ak assainissement mu nekk loo xamante ne aussi c'est essentiel dans commune gis ngeen ne mairie yu bëri nuy wutal sax seen bopp oto mbalit loolu mu nekk problème bu doy waar Sénégal ndaxte président wax Sénégal zéro déchet cleaning day ak bësum setal loolu loolu yëpp du ay programme yu baax te taxul Sénégal set pour Sénégal set mairie yi ñoo war a liggéey setal ko mairie ñoo war a liggéey setal ko et euh, damay wax sax ñun suñu engagement li tax mu gën a bëri doole si nouveau communes yi mooy loolu dañuy wax ni munoo nekk ci ab dëkk saay soo génnee sa bundu kër romb ay mbalit yu dul jeex nga bako fa naan da xeex Macky Sall daanu waaye doo xeex sa maire daanu il faut régler les problèmes au niveau local d'abord balaa ngay bàyyi loolu di xeex sur des principes yoo xamante ne euh, c'est très loin de ce que tu vis au quotidien moo tax aspect assainissement boobu aussi ñu jël ci ay engagement yu am solo donc comme ni ma ko waxee engagement yi yaatal nañ ko ci document engagement yi euh, lu ci ne dañu bëgg mu euh, am doole pour candidat bu ne ci ñun lu ñu ciy teg mooy dañu wax ni ñun élection yi élection wu waxtaan élection wu débat la ñu bëgg élection yi nga xamante ne candidat yi dañuy débat entre ñoom donc ñu woote woote waat di wax ni candidat gox yu bees yi ñoom pare nañ débat ak candidat yëpp ñu bëgg ñu organiser ay débat ci commune yi journalistes yi jàpp ci inciter yeneen candidats yi pour ñu nangu débat bi ndaxte démocratie bu amul débat du démocratie donc ñu fexe ba candidats yi nangu toog même ñëpp su nangul au moins trois candidats ba quatre candidats def ay débats thématiques ñu def élection bi au centre de ces débats ndaxte dañu bëgg dooley xam-xam dañu bëgg dooley gis-gis dañu bëgg dooley idée ëpp doole loo xamante ne mooy joxe xaalis bi nga xamante ne lu ëpp du seen xaalisu bopp donc loolu bëgg nañ ngeen wax si ngeen jàpp si ngir même bu dee au niveau national si ki est anormal élection présidentielle débat am au niveau local xanaa nit ñi war nañu mën a nangu débattre foofu peut-être démocratie juddoo foofu waxtaan nit ñi commencé ko tàmb donc loolu lu am solo la si démarche gox yu bees donc di ko wax di ko di si insister pour mu am ndaxte pare nañ suñu programme liggéey nañ ko donc waxtaan nañ si ak population yi lu si des nag mooy confronté ko ak yeneen candidats yi pour wan ne ñun mun nañ defaan suñu programme te gëm nañu ne suñu programme moo gën seeni i bos. baneen gu si topp mooy RTS nan lay gérer temps de parole candidats yi comme nu ko yoon waajalee surtout coalition yi ba léegi amuñu fi benn information te campagne bi commencé na tey. waxuñu ñu yéen coalition yi temps bii lañ leen jox si wàllu message yu ngeen di jàllale mu am équilibre waxuñu ñu yéen coalition yi émission yii lañ leen waajal pour si émission yi mu tolloo temps de parole. donc ñoom nag gis ngeen ni à chaque fois ku faree si ku jegi su defee lu xaw a jàdd ñu génn dóor si taabul bi waaye ñoom si jalgati lañ dëkk si wàllu googu te kenn du si wax dara loolu nag dafay am solo. ñu koy wax di ko waxaat pour ñu respecter yoon ndaxte mënuñu di tere nit ñi ba pare di def leen neex ndaxte dëkk bi aussi ñoom moomuñu ko sénégalais yëpp ñoo ko bokk donc loolu bëgg nañ RTS wax si nu mu gën a gaawee boo ko defee coalition yëpp mën a préparer wu wax seen candidat seen porte parole candidat yenn temps de parole la ñu war a mën a am ndaxte seen droit la ndaxte code bi moo ko prévoir kenn waru fa ëppale temps de parole si 14 jours yi ñu jëm te loolu wax ko compter si temps bi leen jox si émission yi donc loolu c'est important aussi ñu wax ko beneen gi mooy fiche électorale bi mënuñu dem élection yoo xamante ne nanguwuñu joxe fiche électorale bi am na ay candidats yi nga xamante ne ci opposition bi daan nañ su suñu amul fichier bi duñ dem élection mais à chaque fois élection jotee dañuy maslaa ba dem mais duñ ko jot donc loolu musiba la dëkku dëkku musiba la sànq bu ma ñëw si yoon bi rek maa ngi tooñ sama benn xarit nee ko gis nga suñ la joxee nguur nga am privilège yëpp di doxal élection su jotee nga war a utiliser privilège yooyu pour faluwaat yow élection su jotee ñu la war a wàññil 10 points suñ compté ba pare moins pour cent yow mënoo am privilégié booyal si di sàccaat di xañ ñeneen ñi ba pare fichier bi minimum mënoo ko jox nit ñi donc ñu wax ni woote gi nekkul woo journaliste yi woo nañ coordonnateur yëpp mandataire coalition yëpp nañu daje ni mu gën a gaawee ñu exiger à ce que fichier bi ñu jox ko candidat yi ndaxte yeneen candidat yu bokk ci majorité bi ñu ngi ciy yor di ko utiliser pour mieux cibler yenn électeurs la ñuy dem campagne yi te loolu dëkk yu jaar yoon yëpp da jox nga xool candidat bi Sénégal sax amul adressage mais ko dem France wala États-Unis fichier bi la ñuy yor am numéro nit ñi di leen woo di dem seen kër yi ko mun a convaincre nga convaincre ko soo gëmee sa idée gëm sa programme kay yow ñu war a voté ñëpp fexeel candidat yi xam leen candidat yi xam dem seen kër mais yow nga yor ko di ko làq fexe ñooñu et puis ñeneen bëggoo ñu jege ko. ba pare boole si di utiliser alalu état di campagne ana équilibre si loolu moo tax ñu war euh, wax ni loolu nañ ci wax ndax loolu mooy indi fitna moo tax ñu gañee nit mu jàpp ne gañe wuñ ko di contester violence am wala ay nitam mer parce que gis nañ terrain bi lu fa ne bokkul ak lu ñu gis si urne yi donc fichier bi su nga amul ëllëg nit mun na gañe du ñu xam ban fichier la ñu ñu invalider ay vote yoo xamante ne la ñuy nekkuñu si fichier bi. indi ñeneen dugal ñeneen te loolu mu indi fitna donc point bu am solo la bi nga xamante ne coalition gox yu bees bëgg na ànd si ak coalition yépp ñu mënandoo xeex bi si lu des euh, balaa élection yi ñu joxe fichier électoral